Saalum ci journaliste ak ay leader politique yi fi teew kàddu bi nag dama ko jël ci mouvement FDD di front de la défense de la démocratie euh, ma bokk ko ak Mame Birame Waaj ak euh, Serigne Saliou Guèye ak Babacar Mbour ak euh, maam euh, euh, nu mu ci Salma Ibrahima Fall ak Maymuna Busa ñoom ñooñu lañ ko bokkal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li ñu taxa jóg nag mouvement boobu bëri na ñuy wax sax mouvement journaliste la mais du mouvement boo xam ne journaliste yi rek la parce que journaliste yi rek moomuñu mouvement boobu parce que man mii maa ngi ci biir te du ma journaliste ak ñoom Babacar bu bëri na nag ay journaliste yu ci nekk mais li tax ñu jóg rek mooy ñun ay nit lañ ñoo xam ne ñu ci ëpp xay na xam nañ ñu ci micro yi ñuy wax mais réew bi dafa toll foo xam ne euh, kenn ku nekk da ngay fekkee da ngaa nekkoon ci ay bureau wala sa néeg wala sa place réew mi dafa toll foo xam ne ku nekk da ngay jóg fa nga nekkoon nga ñëw taxaw ci pénc mi ñu ànd xeex li ñuy xeex pour senegal mën a continuer di nekk fa mu nekkoon loolu nag moo tax FDD sosu donc ñun ñu ci nekk ñëpp loolu rek moo ñu yëkkati ñu ciy woo sénégalais yëpp samedi am nañ manifestation terrain Grand Yoff euh, à 15 heures mooy nekk commencement bi ñi ngi ciy invité euh, leader politique yëpp candidat yi ak euh, njiitu mouvement yi fi nekk yëpp ak journaliste yëpp euh, parce que tey jii sax dañoo amoon conférence de presse mais comme dañu yëg ni ñii dañuy def te yaakaar naa ne boole doole yi ci lañ war a toll mais kenn ku nekk warul beru fële di def sa yëfu bopp nii nga xamee ne kandidaa yi dañu boole seen bopp Euh, noonu la mouvement yëpp war a boolee seen bopp ba ku woote ñëpp ñëw ànd ak yow pour li ngay def mën a réussir parce que li ñu soxla du ndamu benn nit du ndamu ñaari nit mais ndamul <coughs> réew mi lépp la euh, li nga xam ne dinaa ko si waxaat rek euh, mooy wax ak sénégalais yi parce que tey mën nañ woote manifestation kum neex nga toog mën nañ woote ville morte nga génn dem ne bokkuma ci waaye démb ak barki démb rek ku dem Guinée Ville morte am na fa par force parce que nit ñi sécurité bu ñu génnee sax dem liggéey yi amatuñu ko boo demee di liggéey sax li ngay liggéey mënatut a tegu ci dara parce que amuñu li ñuy wax état comme nag ñun leader yi ñu yàlla jox ay visionnaire lañ xam nañ ne kat fii Macky Sall jëm ak réew mi nit dina fi bëgg a génn këram du ñemee génn nit dina fi bëgg a liggéey du mën a liggéey nit dina jënd conteneur indi ko fii ci poor bi dootu ko gisati dara dara du jot ci fekk laataa loolu di am nag dañuy boole suñ doolee ñun sénégalais yi ànd xeex lii nga xam ne moom la Macky Sall di woote ci réew mi pour mu jóge fi li nga xam ne moom laay dolliwaat loolu laay wax sénégalais yi xeex bi nag yàlla def na ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dafa am ñoo xam ne li ñuy wax aw laa ay leader yoo xam ne ñoom ñooy candidats yi muy dix neuf personnes kenn ci ñoom mooy nekk président Sénégal incha allah ñooñu nag comme nangu nañoo boole suñu bopp seen bopp ñun militants yi nga xam ne dañu bokk ci parti yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañ ak ku mën a doon il faut ñu booloo ñun suñ bopp comme ni leader yi boole woo parce que tey benn leader rek bu génnoon rek day may doole Macky Sall bu ñu dajee fenn di woote manifestation wala di woote meeting ñu naan kii moo wax lii kii moo wax lii sama leader ñii di yuuxu kii ñii di yuuxu kee kon leader yi ñi ngi defar mais militants yi ñi ngi yàq il faut ñu bàyyi xel loolu ku rusut ñëw ànd ak sa leader waroo rus jox ko gëdd gëdd bi nga jox sa leader donc loolu laay wax leader yi tamit ëppuma leen xam-xam gënuma leen a xam réew mi mais dinaa leen baaxe dara mooy ngeen gën a boole seen bopp Macky sal kum ci def visite biir kër lànkal kum ci woo public lànkal parce que lim bëgg mooy dina def le tout pour pour tàqale leen loolu nag yéen a koy bañal seen bopp pour gën ñëw may doole ñun ñu topp seen ginnaaw parce que mani euh, euh, dialogue bii mu doon woote bari ki démb defe naa ne lu nekk lu gën a nekk yépp senegal amul mooy nga am sa ñaari soxna problème am ci kër gi nga ne pour ñu régler problème bi dañuy dem jëli ex yépp ñu ñëw bokk régler problème loolu la leen bëggoon a def ngeen xam ko lànk moom nag jaral na ko nag bëgg na réunion ba waral ko mu bàyyi soxnaa mi dem di réunion ex ya man nag boo réunion ex yi ba noppi boo ñëwee noo koy doxale ci biir kër gi laa xamul li ci des mooy lii muy def lépp bu leen mës dugal seen bopp ci ne Macky Sall day dem le 2 avril li muy wax naan mi ngi koy tiwit mi ngi koy wax ba muy wër réew mi naan damay def cinq ans du ma def sept ans est-ce que ba mu jotee def na lan la Macky Sall mës a dig askanu senegal dalee ma jot mu respecté ko le 2 avril Macky Sall dafa bëgg a xool ba xam la 3 bu xëyee nan la bii mel su nooyee day continuer toog ci réew mi jaay doole nit ñi xam nga ne pardon benn baat bu demee ba naan daaka ji mooy tax mënumaa jàpp man euh, élection yi waa bërki démb ban naa moo fekk plein daaka mu ne dagg leen daaka ji parce que corona dafay ñëw du Macky Sall kon bu demee bay taafantaloo daaka tey xam ngeen dafa am lu nekk ci boppam te waxu ko Macky Sall foo mën a fi gàmmu Tiwaawoon foo mu fi daaka foo mu fi yi foo mu fi yi ba sax aaye fi nit ñi ñu suul seeni i do seen mbokk ku am ku mën a def loolu aw askan nag soo bëggee organiser ay élection du la tëg na bàyyi caaxaan yi te mu respecté démocratie Sénégal wasalaamualeykum wa rahmatullah assistance bi fi nekk di féliciter le front di wax rek na président Macky Sall gëm yàlla parce que sénégalais yi desee lu ñu ko dara fal nañu ko ni ñu ko waroon a fale tey jii ñu ngi xaar mu delloo sénégalais yi li ñu ko joxoon dañu ko joxoon réew mu ne ñum waaye nga la waay na góorgóorlu delloo nu réew mu ne ñum di ñu ko joxoon suma kàddu bokk na ci wax ak ñi nga xam ne tey jii dañuy mbubboo les pollués c'est important bu ñu kenn mbubboo madame Aminata Touré mi ma léegi bi ñuy bind président de la république musuñu ko wax ne ko na reporter élection musuñu ko demander audience c'est pourquoi bi mu waxee ne dafay recevoir les spoliés man ak moom bokk nañu ci ne duñu dem wuy jiko parce que jàpp nañu ne ndaje mu amul njariñ la ñu jàppoon mooy la ñu waxoon conseil constitutionnel donte dañ ñu tooñ donte dañoo jël suñu droit caxat-caxatee sàcc suñu ay parrainage c'est ça la réalité waaye nag yoon bu jugee yoon bu dogalee des koy nangu le 2 avril 19 candidats yii toog fii kenn ci ñoom moo war a nekk président de la République du Sénégal le 2 avril suñu contrat ak président Macky Sall jeex na le 2 avril dañu war a am président bu bees parce que nag loolu la constitution bi wax te constitution li mu wax donte metti na donte am nañu ci ñun ñii lu ñu metti ñu ñu duppee les spoliés waaye nag fawu nit ki gëm yàlla te la ma waxoon ma dellusi si golo gi mu ngi ci tool bi di yàq nañu génne golo gi ci tool bi ba pare doog a waxtaan loolu mooy li ma gëm beneen bi ci des les politiques vous avez une lourde responsabilité ni ñu dajee boole suñu doole ne dañuy xeex pour que ñu respecter constitution bi ak li nga xam ne moom moo di le calendrier électoral nga la nañu ko defee noonu pour que loi d'amnistie bi mu ndisal ngeen taxaw takk seen ndigg ba loi d'amnistie boobu bañ a jàll yéen politiciens yi moomu leen Sénégal c'est important nit ñi dañ leen jiital ngeen taxaw ne war ngeen taxaw bokk ci liy defar Sénégal waaye waruñu leen waru leen takkal seen bopp wala ngeen ñawal seen bopp mbubb boo xam ne daf leen di defal immunité ba lu leen neex def ci réew saa ni ñu taxawee pour xeex lii di musiba gi Macky Sall nar a dugal Sénégal noonu lañu ñu war a taxawee pour xeex cette loi d'amnistie bi nga xam ne musiba la ci réew mi nit ñaa ngi jooy seeni néew jot na jaadu na ñu wax naka la mbir yi demee ku ci sa loxo taq ñu rëq sa ndigg parce que nag loolu mooy yoon loolu mooy loi maa ngi leen di encourager di encourager encore une fois le front et di wax ne restons unis benn adversaire la ñu am c'est le président Macky et il doit débarrasser le plancher le 2 avril incha allah jërë ngeen la maître Abdelatine juste pour 3 minutes, maître. Patrice, s'il vous plaît. Salaamaaleykum.